actualité yi dafa neex loolu waaye dañoo amoon élément boo xam ne lundi ba ba léegi ñu ngi ak moom. Mm-hmm. muy euh, kooku nga xam ne bàyyi nañ ko fi démb. moom lañu dem directement mais vraiment am nañu fi ay actualité yu neex a neex a neex yoo xam ne. Mm-hmm. bëggoon naa ñu dikk ci bu baax a baax. mais ñu dem ji directement élément bi nga xam ne démb waa ji ginnaaw bi mu. bëggee waa do seen doom ji ñu bañ. Mm-hmm. ba doom mujj caa juddu daal après dañuy déglu incha allah fan la mbir yi mujj. yàlla xam na ne teguma fa sama tànk gisanteex maire bi. mbaa ma teg sama tànk jënd ordonnance di ko indi soxna si si biir kër gi lan moo tax loolu. tere nañ ma fa mais yàllaa ñu boole ba sos fa loolu. mosuma négliger benn ordonnance. bañ la ko waxee weddi woo ne du yow ci neuf mois de grossesse yëpp yaa ngi si doon def li nga xamante ni moom moo war ci xale bi ba yàlla muccal ko ndax jotoon nga dem foofu ngir tudd sa doom wala. waaw demoon naa fa. d'accord gis nañu ci mbiru doom boobu ci biir waxtaan sànq jot na am yoo xamante ni xew na ci ba ay mbiru yoon xew ci ndax moom foofu tamit mën nga ñu am ci ay leeral naka la demee. waaw li si nekk nag lépp lépp bari na amaana dineen am nu ñu lay cofeelee rek yooyu nag avant muy feeñ mi ngi feeñee si euh, bi ma fa ñëwee benn bés jour boobu la couvre-feu di doog a jeex ma dem fa yendu fa añee fa lépp daal jaama foo xale bi ndax moom laa fa seexal jàmm ak yaayam ndax jour bi nga xamante ne dem naa ba jóge fa di ñibbisi fii def sok foofu la ma dalee de ñoom laa seeti ji woon de sama tànk baa ngi nii ay damm kese la mais dama koy sante yàlla li tax yëguma métit nañu wax ci li nga xamante ni moo di problème u euh, tànk bi ak police lan la si doon wut waaw problème mu tuutànk bi mooy comme lii ma wax rek nee naa la yooyu yëpp da see xewee dama yeeg yooyu yëpp ku doon nit loolu war na la mën a jàngal falaa jóge léegi di ñibbi yàlla dogal ma def soog boo ma jàppaloon xolu ki ñaan di ko bàyyi xanaa su ma dee doo ma jooy de. mais naka la mbir mi def ba teere ji ci loxoy yoon. waaw ni mu def nag ba teere ji ci loxoy maanaam mooy biñ demee nag bay du ndox man ndax dama leen ba ma nekk hôpital dama ne xale bi indil ma ko ma gis ko. ndax li ma dugal foofu wóoruma woon ba xam dina ma génnee boo gisee sa leer rek dina gën a neex ma forcé ka si xam nga mu bañ si mais dafa tombé woon ak côté corona bi ma gën ka si nangul mais tey su ma demee ba génn hôpital ñëw suñu kër di dund ak métit si ay bés yàgg lool war na ma ko mën a indil dañuy waxante dëgg rek war na ma ko mën a indil ndax bu ma xoolee sama doom su ma nee massa sama bopp massa bi fajul liy metti demee dina wàññi douleur bi léegi bi yàlla dogalee ma wax ko loolu mu gàntal ko moom si mu gàntal ko ñëwu fi ba tey ba toog naa fii sax anniversaire am boobu may wax noonu si deux mille deux mille vingt et bi ndax waaw deux mille vingt et bi la avril boobu su ma juumul daal mais tombé na anniversaire am ma maa yëkkati xéewal jox ko te pourtant maa ngi si métti temps mais mbokku taalibee ñoo may jox xéewal may jël di ko jàllale ngir mu koy dimbale tout tànk bi fenn daal lañ may xasee mooy si affaire bi mu nekkee hôpital te nee naa la dama koy wax waxaat ko. wax nga ci affaire hôpital bi mooy question bi ba léegi la mel ni tontu bi ñëwagul maanaam plainte bi police bi nan la def ba dugg ci mbir mi. waaw xam ma mooy li ma la wax rek yëf yi dafa bari ba da ngay cof fii cof fii rek sa xel moo lay mottalit nga xam ne kii lii muy wax di dëgg woowu ma leen fi ngir sos wala ngir tappale damay wax nii mu demee dafa bari rek dafa bari mais gis nga maanaam comme noonu ma ko toppee noonu pour mu indil ma ko fi mu bañ mm-hmm. ba yàlla dogal may mën a dem di def euh, rendez-vous mm-hmm. dama fa daan jaar barki Serigne Touba ak sama métit lépp damay toog jël sama tànk bi nii tàllal ko fenn ndax ja feer yi mi ngi si métit bu métti mm-hmm. mais tànk bi mooy tax du ma mën a sentir dal lu may métti daal léegi nag dem naa ba xam ne ñii ñii ñu daal wax fa dëgg yàlla na ma yàlla jéggal si kàddu gi mais lii dafa jekkul dafa jekkul ndax yii moom boo siy wax dangay am nooy waxee sa kàddu daal ndax lu ko moy sa nitu bopp dina la suivre ku dëkk feneen sax nga waxee neneen mu dëkkalee la feneen te meloo noonu ndax boo xësee bay wax rek dafa dafa da doon loo xamante ne da war di bàyyi xel si la ngay wax mais gis nga xale boobu li ma leen si topp ñu bañ lépp benn jour daal maa toog mooy boobu Sénégal si la jëlee woon coupe bi coupe du monde coupe d' Afrique bi xam nga ñu ngi woon ndakaaru di ko feete lundi boobu fa la ma fekk yaay xale bi bàyyi ma xale bi dem ba may ñibbi xale bi dama ko joxe foofu dem ñibbi xale bi sama beeke yi la jàngee dox barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul samay beeke la jàngee dox loolu di doon mbég dem ba doxam mokku avant ay waaw lii yi di gën a satiré maa daan ànd ak moom di dem si bitig ba mais du kenn ku ma jubóol foofu si kër gi ndax ñoom ñoo xëy rek indi seen bañeel mais man defuma fa kenn lenn nit bu la xësee ba xeeb boo jëfoon àdduna ak la sa biir du safe léegi nag man dem naa ba xam ne ñii dañ may ignorer sama doom ndax yii si xew ma bàyyiwaat ba benn bés le 14 février 2022 ma ne xale bi comme yàlla dogal na ne ñëw naa fa def naa fa soog gisuñu loolu indi lu ñu ma ko hôpital ba ni ma génne hôpital nekk fii yàlla di ma may wér ba ma mën a dem di faju indiwuñu ko ba tey dinaa jaayante bési bési li ma jógtee nii jógteewu ma si lenn lu bon ba may dem ay këyitam daf ma topp këyitu këyitu juddoom ndax xamala laay bañ ma yor ko di dem nga téema ne ma xale bi lu indi si ay wax mais bu fekkee da ñëw ma wan na confirmation nii nga liir di nga xam ne maay baayam ndax su ma si jógoon lu bon yàlla dafa may toroxal ana ñi fi sàcc ay xale di am problème waaw dëgg moo fa nekkul mais man nag ba ma koy jël dama jógoon pour indi ko fii rek santale si yàlla bu baax ak si yenent bi si leeram gi mu génnee jërëjëf nga demoon foofu ngir jëm jël xale bi nga xamante ni sa doom la indi ko ci kër gi nga xamante ni mu fi nga dëkk wal waaw dama demoon jëli ko pour benn yoon boobu ndax lii xew nii xamoon naa ne day am xamoon naa ne day am. ndax booba nga ak yaayam. yaayam déggal ma la wax su ma fa masaana ñëw nii ba mu jox ma xale bi mooy jour boobu ma lay wax da si doon mel ni maanaam kuy sax kooku li bàyyi toog ne wuy téléphone def ay affaire ah, ma jàpp ne moom la rek ak téléphone ah. mais bu fekkee am nga jàng ne naan lii kuy jéem a naxaral nit ki la rek. ba noonu la ma fa dénkaane xale bi dem jour boobu bi muy ñëw fekkuma fa léegi nag man loolu maa ko volonté woon pour jël ko indi ko fii sant si yàlla bu baax ndax xew-xew bii laa doon bañ xañ gi tere ma gis sama doom ba mu dee aw ma si lu dul lakk na dee ma ñëw suul fañ ma doon tere bi mu deewee lañ ma ko yombalal muy seen ëttu kër yaa ngi dégg léegi ñoom bi ñëwee fii nag ba ma jël si xale bi indi ko fii def benn diir bu ndaw laa def ndax cant gi boobu mat na maa ngi si mbégte bu baax ndax comme yàlla. voilà mu ngi noonu da ci ëppoon solo baat boobu rek laa bëggoon mu dikk euh, kon mën nañoo doyloo li xew lépp ma jigéen yëf yi fa mu commencé mooy comme doon bëgganteel ñu rawale xale ba jëlee ko dëkk ba indi ko Dakar euh, teewul yàlla def waa ji ñëwaat ba dakaar topp si ko fi ba doom juddu ci xañ géeg génn géeg yëpp daal fa xale bu mujj daal ñu woo ko ni ko daal lakk na faatu na mu doomam nee na nag dañ ko jafee la loon ba xale bi dund muy dugg ci ëtt ba ba mu faatu am na ko hmm. lii daal am xee xeebeel nag dugg na ci wax ji muy handicapé la waaw soo sooy bu wax dëgg yàlla gis nga handicap fii nit ku nekk am nga ko hmm. nit ku nekk am na handicap parfois nag ñenn ñi mooy seen cër yi ñooy xaw a euh, laago mhm. te loolu nit ku nekk tegu ko boppam yàlla suñu borom mooy nattoo nit loolu mhm. moo tax euh, ñii ci xeeb nit wala nga ci manque respect nit yàlla rek moo xam mën nga xëy suba génn fii say cër bañ mhm. wala nga accidenté yore bekke ni moom kon donc xeebeel ci côté boobu ak d'habitude ñi nga mm. xamante ne nii dañuy bañ may seen doom yi ñi nga xam ne peut-être bu nekkul problème handicap yi mm-hmm. ay casque mbirum casque lay doon xeeb bi xeet bi duma ma moom nangam ak nangam léegi nag ni mu def ba doom juddu ci tey jii nii ñu xañ ko ko ñu xëy ne ko doom ji lakk na te fu mu lakkee ci kër yaayam la ñu koy doog a may accès pour mu dugg si si biir kër gi loolu euh, nekk na loo xamante ne nii lu metti la c'est mm. histoire la bu compliqué daal son yi bu pour nga comprendre réellement li nekk si biir moom mm. li ko dal moom du moom kase la mës a dal yàgg nga dégg nit fii am na jafe-jafe peut-être tooñ na euh. yàlla suñ borom moo dagal que ni doom juddu na ci ba li am ci euh, mënoon nañ ko ko yombalal rek comme ni waree sooy lakk bi moom nu mu demee ba mu lakk parce que lakk bi waaw bu leen neexee bu subaa ñu yëgal élément parce que affaire bi war na nekk loo non non bàyyil noonu rek alaaja xam naa comprendre naa moom ñu war a lijjanti waaw mais comme waaw xëy na dina parce que moom lii mu wax nii sax loolu la bëgg waaw waaw d'accord li mu bëgg mooy. mais li wees est-ce que doo ñëw ci li wees parce que foofu boo fa duggoon tey li wees loolu xam nga yooyu ay détails. waaw mais. parce que xale bee leen liyee woon xam nga dafa dem ba mujj gi. ñu ne xale bi génn na àdduna dafa lakk. waaw léegi nu mu lakkee. nan la yëf demee. ba lakk-lakk bi am ci ndax lakk-lakk bi at accident la wala. Uh-huh. wala du accident. ok donc parce que bu fekkente ne bi ñoom dañ ko bugguñu muy ñëw ci kër gi. waa kiiwuñu ko. te xale bee taxoon muy ñëw muy ñëw. ñu bañ lie ñëw bi di am. non jékki ñu ne xale bi lakk na. li xalaat loolu nekk xalaat. li <laughs> xam naa comme en tout cas il faut xam na alaaj ci côté enquête la bëgg. non il faut ñu enquête ñu dem foofu côté boobu rek. Euh, la dëgg-dëgg waa dafa am leneen. loolu mais nit du génn àddina rek ñu taxañ ko il faut ñu enquête jéem a xool lan mooy problème mu accident bi. nu mu lakkee fu mu lakkee ak fan la lakkee. ndax dafa am ñeneen ñu lakkaal nan la yëf yi demee il ah, fi mu lakkee ñaata fa lakk ak lu fa lakk. waaw wala ndax moom rek a lakk. waaw ok parce que da ngay li la waa ji di expliquer depuis le début. Mhm. mooy bugguñu woon. muy ñëw ci muy ñëw ci kër gi bugguñu woon d'abord. may ko ko mm, may ko ko doom am na ci jàpp nañu erreur la et cetera donc waa yi ci jëmi boppam fi muy jëmale mbir mi. Euh, mooy non fi mu jëmale mbir mi. mooy dañ maa bëgg a arrêté ko war a saytu. war ñu seet ndax lakk lakk la. lu accidentel la wala. Hmm. lu ñu prémédité mais seen alaaji côté boobu moom euh, mu baal ma nag ci métit la ne mais man su ma duggee ci kër natt boobu daal ma fa bu ma waa kër gi bëggul ma téye sama tànk. non non mais dafa am doom ah dafa am non non waa fa waaye comme waa kër gi bëgguñu la. wala ah, waa kër gi bëgguñu la dem na ba ndaw si moom it yaayu ndaw si ne bu ñëwee gis nga mu yor téléphone di ne ci yeneen mel ni ku koy naqaral. mais après nga toog boo mën a dégg ñu jékki ñu ne kii donc il faut ñu enquête waa ji na dem ci yoon ñoo du ñu jéem a xool. ah bon parce que ah waaw yëf yi lëndëm na ci man man bokk ci man. xaw ma yéen bu dee leer na ci yéen moom mais en tout cas. Mm-hmm. man jàpp naa ni war nañu koo saytuwaat bu baax a baax. kon bu